bu neewoon naa la da ngay doxaan ma wax sa jabar mu bëgg a toj kër gi ma wax la ko ngay lambi lambi waaye ñii xamuñu la nee naa la yow ndox bu sedd bu rey téeñ ga man maa la xam man kooba bi man mii maa la xam lay saw yaay bandi yow lay saw est-ce que jëloo dara sax di ko nëbb yow yaa ma gën a bandi yow mii yaay jël yow mi ñu may jëkkër xam ne américain toppoo ko noboo bu ñu waxee man paa wër. yéen ñaan ñii. Ah, déglu ma waa déglu leen. yaa ngi waxaat. waa nga ne. yaa ngi waxaat. waa yow fu nga naa ma ku bëgg a yem ak yow. Hmm. lambatu ma foofu. eh dara man. xam nga lu ma leen bëgg a seen affaire yu ñàkk fayda yi laa bëgg ngeen yamale lii rek la maa lay géré xam na ne maa lay seere mu dugg di yàq di def lu ko neex te neewoon naa la fii doo fi am dara yaa placé sa bopp waaye fi nga placé sa bopp baaxul fii doo fi am dara. te li ma gën a soof ci góor mooy dañoo yor jikko gilleem dañuy lekk fii di séentu fee te teewul dañuy lekk fii ba suur de waaye fokk ñu séentu fee am luñ fa dagg. en kay yow war nga maa fenal yow. Eh, non fii may wax sama téléphone nga yeew ne dégg nga ma. créer say fen yu la neex ne maa ngi doxaan am na lii am na li nga dem woo sa jabar Sacha nga expliqué ko. man fenoo waaw lan nga wax Sacha dama ko nettaluñ.